asalaamaaleykum c'est Mam Cheikh Ndiaye président de association des tailleurs et stylistes pour l'émergence du Sénégal et secrétaire général syndicat national des couturiers du Sénégal affilié avec la CNTS Cœur Madia Mody Guiro li waroon suñu ndaje fii tey moo dañu am ay comme l'association le but c'est modernisation et formalisation du secteur informel donc ñu avons ay ndaw yu ñu coupe couture et en gestion entrepreneuriale et euh, l'éducation financière donc ñu formé ci lu 150 ndaw et ñu avons fait une synthèse, une suñu siège nous avons jox remise de diplôme. si ñu formé nous dañu am partenariat ak 3FPT ndax ku ne xam na état bu Sénégal nous na fi ay direction pour ñu accompagner donc nous avons fait loolu dañ dem vers les informations uti am nek partenariat ak 3FPT ñu may ñu formation ñu une en fait ASTES c'est est c'est c'est national plutôt C'est national ndax bo xolé ñi ngi ñuy donc un peu partout dans dans dans dans ce bari nañ fa ay représentants yo ñi ngi fi fa ndax ASTES dañ ko yaatal ndax Dakar donc waral comme que ñi ñu au niveau de Dakar la mais nous ngi wadjal fu ci melni ties fatik Matam ngi fay parce que am nañ fa ay représentants té organisé wu nañ fofu ba nga xamantene ne nu rek nañ aussi ñu ñun ak 150 euh, ndaw ndax de décembre nañ ay